xam nga wax olof jaa na ku wax ku wax feeñ de wax dafa garaaw de bal bu tàkk la ku ko fayoon tey milliard du du ma saa waxaat la deuxième vague sera plus dévastatrice réccu na ko trop réccu na ko trop beneen bi réccu na it li waxoon ni teg leen ngànnaay ci suuf yéen waa MFDC pare observé leen benn cessez le feu kon moom moo jiite MFDC dëgg la ustawaay moo jiite MMDC kay dëgg la rébellion Casamance moo ko jiite. li ngeen taxoon bi ko woowee assemblée ci affaire Mamour Diallo bi 94 milliards yi bi ñu enquête xam ne waa ji waxul dëgg waxul dëgg Sénégalais yi enquête bi leer na mu dem toog Casamance daw demul assemblée moom joxul benn cër assemblée nationale ba mu ba mu demee Casamance mu toog ni nii bis bi ma jàppee Casamance dina ma défendre. kon yow ah, yow rek nga ne yow kon da nga bëgg xar Sénégal xar Sénégal ñaar may féliciter Jean François Marie Biagi, ancien secrétaire général du MFDC mu ne moom il est mu je suis Mamour Diallo lu la même loolu la article je suis Mamour Diallo pour dire que mom il est républicain alors que Sonko dafa bëgg xar Sénégal ñaar ko xamni ne mu ngi MFDC. mu ne moom Sénégal la bëgg mais ne la Sonko mu ne mu ne moom sib na Sonko bi nga xam ni daa bëgg jël Casamance mu daj ci kaw li def ci Sénégal ba ne Casamance bokkul ci Sénégal Sonko mooy musiba moo tax Sénégal yi ubbi leen seen bopp yi waaye eh, yàlla du juum amalu la 15 pour cent mu des rek 85 pour cent amoo ko nga bëgg moom réew mi bëgg a noon nit bëgg a taal dëkk bi yow ba amoon 50 pour cent fu ñu jëm yàlla du juum de kon mooy terminé pour wax ni ñii dañooy def benn mémorandum pour yóbbu Macky Sall prison CPI tëj ko moo gouvernement am ndax dañoo rey ay nit may yëgal Sénégalais yi ne man bëgg naa ànd ak waa Auchan may lancé un appel waa waa Total Birima Ndiaye famille Mansour Faye Saint-Louis waa TFM waa RFM yi ñu taal seen seen oto yi ak ñi ñi te ñu tax seen doom yi dee ba max leen ci alkaati yi gendarme yi ñu sonk brigade Vélingara brigade Bignona sonk kër Samba Diéry Diallo loolu yëpp sonk la ak Guy Marius Sagna ñooñu nag kan lañ yàpp ak seen porte-parole boobu du ma tudd tërëm moom ba dem liggéey ndeysaan il se croit déjà ministre porte-parole du gouvernement de Sonko looy wax ci seen tur te li muy wax da ngay rus sax te pourtant borom xam-xam la de mais boo bëggee nguur façon bu nekk di ko ko wutee foo ne waa ji day jël nguur gi tànk di ko tarbi di ko fenal di ko sosal yàlla jëppi na la su borom na ñoom nag dañoo tàmm dama dama leen yóbbu CPI ñu jàppaleen ñoom ñëpp yóbbu yóbbu tëj leen muy Sonko ak gaay bi mooy sàcc bu yuuxu sàccoo mais Sonko kan la yab M2D ku ngeen yab yéen mais yéen waa M2D yéen yéen yëgoon ngeen newoon nañu d' accord ñu amnistie Karim Wade Khalifa Sall maa ngi profité di jaale Khalifa Sall le grand député maire de Dakar yaay moo fi jógee wàññeeku daa tey jëlee ko war a denc yàlla yàlla xaree àjjana ñu jaale Khalifa suñu la nit ku nit ku nit ko réglé la vraiment nit ku baax la. du cëppi cëppi affaire bi du doole pour moom affaire affaire xel la affaire bi ci bopp bi la par contre am na nag ñoo xam ne cëppi cëppi rek ak dóor mbëkk waaw foo ne noonu la ñuy def pour napp Sénégal yi jël Sénégal non loolu yëpp xale la quoi yëpp daf la ma ne loo xam ne dafa leen rëcc yu bëri ci yéen M2D bi Ousmane Sonko génnee dañ def conférence de presse ñu ne d'accord ci amnistie le M2D s'oppose à l'amnistie

li ñu bëggoon wax mooy yabeel gi ëpp ñëw taxaw def sa njaaxum ba pare ku toll nii sëñ Mountakha Mbacké xalif de des mourides yàlla dafa yàgg te wér sëñ Mountakha jàlloog yow jàlloon naa ñu bari ci àddina bi ñu koy seeti par jour nekkul ba kenn ñëw fa mu nekkoo rey benn bakkan rek dem safara que wutin mu ne ko non xam nga affaire bi amoon affaire xalifa affaire Karim moo tax kon moo tax ñu rey quoi mu ne ko déet politique ak prison ñoo ànd sëriñ may wax de sëriñ bi ko ne ko nag loolu ak politique nga may wax man ne la politique ne wutin bi laa la wutin bi wut nguur jarul bakkan bakkan moo gën a nguur yëpp ndax yàlla moo koy joxe te du ngeen yàlla loo mënul joxe waroo koo faat waroo ko yàq sëriñ bi fa lay waxee ak moom loo mënul defar nit yow boo amee mille milliards de dollars mënul defar nit yàlla rek subhaanahu wa taala borom kun fa yàq wan sëriñ bi wan ko ni ko xam nga wax da nga fa nga war a waxee kan ko war a wax kan ko war a waxal nan ko war a waxee macha allah sëriñ bi wax na ko fa nga ko war a waxee wax ki war a waxal ne na ko wutal wi sama sëriñ bu baax bi wutil wi sëriñ bi wax sëriñ mu ne wutil wi wut nguur sëriñ bi wax de jarul bakkan benn bakkan waaye nag ñoom ay rekk si nit lañ nañ rey Abdoulaye Wade dañu waxoon nañ rey Abdou Diouf nañ rey Macky Sall parce que ñoom baaxul ñu pour ñoom moom kenn moo baax anti système l' anti système dàq sàcc suuf soo nga xam ngeen ni sàcc xëy na suuf la nee naa ko dama yóbbu tribunal ma génne preuve yi soo ko li muy def culture de pon mënu ma koo dettali ci wutam xaalis am na benn journaliste bu ñeme yàlla nee jox nañ ko 100 millions mu delloo ko benn waaye bu ko koo romb wa dee dëgg yéen manipulateurs yi ñoom dina wax ngeen li muy def takk ay loxoom ci ginnaawam mais nañ koo mënatee kii mbari saa xotti yéréen bi mu duggee naa ne dañ koo dóor ko ko suuf rek waaye kenn dóoru ko waaye loolu la mérite nag ba bàyyiwul fu nekk mu dem fa tànk bu toogul dana dëgg day bu toogul wolof jaa moo tax dañ koy yar da ciy baax léeg-léeg yow yow yow yow comme jumboo lu nga xam nga yaa ngi jumboo jumboo saaña yow mel ku tey day wax xam ngeen wérul koo xam ne prison da nga prison ci sa yaram day sa yaram day xasal prison kooku nag ñëw dëkk bi moom bëgg jàmm

Sénégal pays de teranga les lions de la teranga les de la violence bi violence les violence violence rek tribunal piki tribunal ni toj yak rek ak toj ndax lan ndax doomu sokoy ñu internet lañ dajé nit ñu ah choisir dina ànd et compagnie c'est une association de malfaiteurs malin de leen de gërëm la leen wax.